moom Daouda Komal yaa Daouda Sandwich. non moom Daouda Sandwich Komal. Ah, ma ragal ba dem jëli duwul ma dër. xam na ni duwul ma dër du dóore. waaw ah, ma ñëw ma ñëw ma ñëw wuyu ma. Uh-huh. gis na mbëri mag yi ni ñu muusee. dañoo muus xool na ni. xam na ni kii du booy de moom mag de ba muy bëre damaa bëre kii. ba ngay bëre xarit la ngi ba ngay bëre ba ma koy xam. wuy ma kii ñoo jàngal ñoom Balla Gaye doo bëre. waaw loolu dëgg la yow ba ngay bëre ba ngay kii nu mu tuddati sumbukat boobu dëkk sama koñ ah, Fallou Ndiaye ba muy bëreeg ma boobu xale laa ma suuf su man rek sambaay champion la kii boo gisee ñëpp bëgg a bëreeg moom. mais yëg nga ni jël duul ma man maa ngi ni ñi dañoo bëgg a bëreeg man. man yëg nga ni jël duul ma yëg nga duul ma waaye mi ngi doo ko yeb bis bu jëlee quatre quatre roues yi. loolu am na solo quatre vitesse <laughs> na moytu <laughs>